déwénetil di leen ziar bu baax ci weeru koor kooru ren gi nag bëgg naa ñëpp balante ak xol dara xaju ci nañ ko yaatal ñu libéré ko ñu fóotaat xol yi ñu mën a jàll weeru bi démarré waat une nouvelle vie ñëpp bëggante soppante ngir yàlla wàcce wërsëg suñu dëkk vidéo bi may def nag c'est suite à la réaction de beaucoup followers moo tax ma koy def dama gis nii dañu dugal benn information nga ab nit dañuy woote waat pour laajte waat cette même information après voilà te loolu boo xoolee imaginons mille personnes ku nekk dix minutes dix mille minutes la loolu boo xoolee li muy représenté en terme d'heure voilà day xaw a lekk suñu temps bu bari donc vidéo bi dama ko def spécialement pour ñi nga xam ne bëgg nañ am information Canada pays la comme yeneen pays donc ku nekk mën na fa dem mais balaa ngay dem Canada di nga am projet bu leer boo xam ne boo demee duñ la rejeté parce que Canada kenn fa dugg te amoo lu leer bokk na ci ki bëgg dem jàngi bokk na ci ki bëgg dem vacances bokk na ci ki bëgg dem liggéey bépp bu ci nekk nag dafa am anam yu muy àndal ak charte yi ki bëgg a dem liggéey buntu yi mën duggee mooy entrée express wala mu am offre d'emploi mu mën prétendre au visa am permis de travail dem liggéey ki nga xam ne dafa bëgg dem vacances day am kayit yu yoo xam bu dee commerçant la day dajale papier commerçant yëpp bu fekkee indépendant la day dajale aussi papier bi bu fekkee invitation la am nag kooku mbirum day gën a yomb parce que ki koy invité mooy def attestation prise en charge defal lépp pour wane ni bu ñëwee daf koy jël en bu fekkee keneen ki bëgg jàngi il faut nga am une pré-inscription pré-inscription bi nag université bu ne privé comme public mën na la ko defal mais dafa am njëkk. admission booy fay boo ko fayee selon état bi ñu déterminer coût yi nga fay bu dee Québec moom il faut nga am certificat d' acceptation ak yeneen kayit yoo xam ne voilà donc globalement Canada pour nga dem fa du génn raison yi xanaa nga demee fa maladie pour faju donc du génn trois raisons yi visa visiteur visa via entrée express ak visa étudiant donc yooyu yëpp daf lay jox ay permis permis de travail pour travailleurs yi permis d'étude pour étudiants yi keneen ku am beneen laaj may ñaan nga seetaan vidéo yi nga abonné ci YouTube bàyyi commentaire bu fekkee nag da bëgg tenter sa chance projet benn offre d' emploi pour mën dem Canada mën nga jaar suñu cabinet ñu dimbali la ci defaral la un très bon CV canadien defaral la benn dépôt ci programme fédéral bu wóor boo xam ne c' est sûr que kenn du ci arnaqué. programme fédéral kenn du ci laaj dërëm da jàll wala nga bañ a jàll maa ngi leen di jaajëfal maa ngi leen di ziar maa ngi leen di wax déwénati encore une fois. di leen ñaan di leen woo ci ngeen abonné ci chaîne bi ngeen partagé ko man it's for life